jërë ngeen jëf bokki Wassare Lamb ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëf bu baax baax maa ngi fi jàmm gën si Kambaaw seet si nga xam te mooy 1 Giga nuyu naa la waaw maa fay tey de dama ñëw seet la waaw fi garage clando nga ñëw si garage bi fi sama garage la fi laa ah. jàngee métier ok waaw fi laa defee lépp tey nag ñëw seet si la bëgg waxtaan ak yow. nga andi dañuy toog yeggali waxtaan wi. waaw dañ toog yeggali waxtaan wi ma xamal la lu bari. waa baax na aja aaram gis ngeen mbokk yi comme ni leen ko waxee maa ngi fi ak ki nga xamante ne mooy 1 Giga fekk si ko ci garage bi fi nga xamante ne mooy jàmm gën si Kambaaw ah mu bëree dimanche mu bëree samedi daan jël bu rëy mais avant loolu dama bëgg ñu ñëw ci préparation combat bi préparation combat bi 1 Giga naka la demee woon. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi mm-hmm. ma sant sama ñaari sama sëriñ si borom Sam moom moo yombal lépp préparation bi ñu ko préparé ni ñu doon préparé làmb rek waaw. kañ nga dugg ci làmb dëgg-dëgg kañ nga commencé bëre mbapat ndax defe naa sa premier combat samedi nga ko jot a bëre kañ nga commencé bëre mbapat. yàgg na ma nekkee xale ba léegi maa ngi bëre mbapat. ñaata at. yàgg na ma nekkee xale ba léegi. mais ñu ci bëri buñ la xoolee ak taay bi dañ naan est-ce que un giga mën naa nekk mbër. waaw loolu moom yàgg nañ koo dégg. Mm-hmm. amaan mais ñun miis nañ ko ndax bañ dalee jug ba léegi ñu ngi koy dégg teew ñoo dañuy yegg dañuy ñu ci bari dañ lay xaw a ñeewantal euh, taay wi ndax dañ naan bëre dóor dañ naan un jugaay est-ce mën na jot un jugaay ci làmb bu adversaire jàpp ñu ci bari loolu dafay nekk seen problème. ba a nekk mbër est-ce que loolu du la handicapé. loolu yàgg naa koo dégg déggoo ma ne loolu noonu yàgg naa koo dégg su doon loolu fi ma yegg yàgg naa dégg loolu teewul damay dem. foo jëm. xam nañ ko. déedéet <laughs> yow kay yaa xam fi ngay dem mais ñun. man fi may dem gars xam nañ ko xam nañ fi ma jëm nit ñi xam nañ fi may jëm bu baax man mën naa bëre ku ne. du ma mbëru du ma mbëru comédien. doo mbëru comédien. comédien mais nag yow yaa ko wax. gars yi comédien lan la jàppee. waaw moo tax man la man du ma mbëru comédien ma sax si làmb ji. Hmm. li gars yi di def dàqu ñu ko. mais mais mais balaa maa ñëw sax balaa maa ñëw dégg nga <laughs> xanaa kii nag mooy mbëru chauffeur yeeg ah mbëru cotiseur yeeg mbëru mécanicien yi. defe naa ne am ngeen mbër bu bees ndax defe naa ne kii ma dalal tey mbër la moo xamante ni chauffeur la nekkul ci làmb ji rek bàyyi métier day dawal oto wala boo dafa yokk kalandoom di liggéey. mais balaa maa ñëw ci loolu dama gis nga def open press nga def open press bu neex boo xamante ni nii keroog bi nga feccee lan la ñuy wax 2 giga lan. 2 waaw. <laughs> loolu naka la dikkee. ah loolu gars yi ñoo créé rek jox ma ko te sama adversaire bu may bëree moom force damay wàcc suuf mu wàcceel suuf. mais yow yow yow ni nga toll nii boo wàccee suuf naka lay demee. waaw ah, bu ma wàccee buntu feeñ la. nu buntu feeñee. ah gis nañ ko. mbëri bi moom defe naa ne amaana kenn du ko laam laamee. déedéet ma ñëwaguma ci combat bi mu bëgg nga ñëw ci open press bi. ñëw ci wàccaay li fecc beeg yooyu ba noppi. Ah, loolu ñëw ci digg géew bi ñun moom maanaam buñ feccee nga ni fecc lañ mën a buñ bëree nga ni bëre lañ mën mais nag dafa mel ni dafa mel ni nag fecc nga gën a mën ndax bëre moom man gisaguma ko. mais ah, open press bi fecc keroog moom cuula xaw ma foo ko foo ak naka nga ko waajee. te pourtant des na sax <laughs> na sax des na waaw. mbaa loolu gaar yi da nga doon mosal gars yi rek. nga doon mosal ñun jàmm def ñun bu dee feec waaw ñun def naa ni ci lépp lépp lépp jàmm nga boo xoolee ñëpp ñëpp ñëpp nga fi dëkk da ngaa mën a da ngaa a bëre ndax Siteu moo ñu ko mooy suñu moom daa mën lépp. kon si moom lañuy ñuy roy. mais kaw ñu gis la nga ñëw stade andi ambiance dem ba ci tëggkat yi fecc fa fecc mu neex waaw. andi ambiance wane ne man mi kat làmb dund nga ñëw ci digg géew bi man nga ma wax ba abis sifle bàyyi góor a nekkee gauche nga nekkee droite ba abis sifle naka nga naka nga jëflanteeg moom billaay boo damaa xam ne mu koy ko daan non ñëwuma ci combat am noonu xamu naan boo jàpp di ko daan ndax daan nga fi mu toll ni moom benn la mais naka nga ba abis sifle waaw ma la wax rek abis sifle na bàyyi góor a taxaw na nii un giga taxaw na nii waaw daf ñu yéen a ngi leewaatoo leetoo ngi leetoo ba mu yàgg ma xool ni kii nii du xeex kat et pourtant moo la xaw sut. waaw mais du xeex kat ma ne kii dam koy dóor jàpp daan ko dam dama ko bëggoon dóor si stade bi ba mu dee. de de Mor moom am ci làmb bu ko fi. am ah. na xam naa ne bu ma jàppee. baax na ba ci kanam. mais est-ce que jotuloo ko yóbbu sax. ah gars yi gisal nañ ko seen boobu kay. looloo yéem gars yi nee nañ man bi ma la gisee nga takk gant di bosu ma ne non kii kii dañoo yëpp parce que kii fan lay jot mais nga jàpp waa ji duma ko ba yóbbu ko ardo man affaire dama ma a jaax est-ce que jékku woo ko ci mystique nag. mystique amuñu mystique sax amaguñ ko. amaguñ mystique laamu ji mystique feeñu fa. laamu ji booyee forcé ni bi dee rek ñëw jox mais bi nga jàppanteeg moom kele bi nga bi nga bi nga defee rotation. ba di ko jàllale loolu loolu loolu naka la la dikkee. teel micro bi déggoo man la ñun jàmm gan lañ dëkk ñun dañoo mën a bëre. ñun dañoo judd ci bëre. bëgg nga ñëwuma ci combat bi. waaw bëgg nga ñëwuma ci combat bi nga jàppanteeg moom ba di ko jàllale. waaw loolu bëre la rek. bëre la rek. damaa xool gis bëre bi ma def ko. mais bi nga koy def sentir ne Baye moo la xaw gën a diis tuuti. non non Baye mu ci moom xel sax laa la wax mais bëre moom man jour boobu ku doon ku doon keneen ku doon Baye Gora noonu laa lay def. mbaar waa jàmm gi liñ topp sa gannaaw ànd la moo tax doole gën a yokk waaw gis samay mbokk gis samay deret gis samay doomu nday gis ñëp suñu waa écrit gis ñëpp jour boobu noonu déggoo na laamu jooju man maa moom damaa ñëw dugg si laamu jo xam ne maa ko moom nit boo moomee sa alal da koy dem jëli waaw loolu de am na moom waaw loolu rek la nga ko ndomb ba ko ñaata yoon buux ko mu tekkaat appi mënoon naa ko faa bàyyi dama ko dóoraat benn coup buux ko mu tëdd. mu dem. mu nekk dem ci victoire 1 Giga. ci la première victoire 1 commencé xel bàyyi ñëpp commencé bàyyi xel 1 ci làmb. waaw waaw mais bettul waa jàmm gën. bettu leen déedéet. média bi la bett ak ñi presse bi ñuy wax rek. mais mais loolu man loolu mooy suma problème ñu ci bari xamuñu la woon. durant bi ñu lay gis ak bi ngay bëree daanaka dafa xaw a jegeyaantoo ñu bàyyi ëmpale un giga kan mooy un giga ah, mooy doom tëlimaam jaara juddoo fi yaroo fi màggee fi defee fi lépp ba tey jii nii mu jug di bëre ji arène waaw moo nekk noonu fi mu toll nii gannaaw euh, am nga sa premier am ci ndam nit ñaa ngi wax un giga un giga un giga nii bu moo dee xool adversaire am day xaw a jafe ndax euh, ñi may gis ñëpp ñii ah, ñoo sut ñii ñoo la xaw a ëpp nii boo doon dem fan ngay dugg. lu gars yi wax rek ni ma def bañ jox ma komba buñ ko defee ba indiwaat. keneen dama dégg ñu ne dama dégg nga ne. Euh, yàgg nañ la jox ay combat mais naan nga bëgg di bëreel moo tax yàgg ngaa delloo avance. waaw loolu man maa ko wax. amaguloo combat di taamu dinaa daanaan la a bëre parce may bëre damay bëre ku mën a bëre mais bëgguma bëre koo xam ne mënul ñaar la. benn bi ban la. gëm sa bopp. ñaareel ba. beneen mu nga ñëw appliqué ko yàlla mooy maye ndam du maye ndam. mais est ce que am nga doole. aw ma doole am naa doole aw ma doole. non man dama lay laaj. ma la ma lay laaj nga bëgg mu est ce que am nga doole. bu si kanamee di nga ci xam dara ndax du ma la wax ni am naa doole du ma ni la aw ma doole. mais si kanam tuuti yow yaay gisal sa bopp xam ne un Giga am na doole. may bañ mooy xam nga des fois victoire des fois dafay dofloo nit. mën nga am victoire fii ñu lay jox adversaire ngay taamu ñu jox la koo xamante ni da ngay jëlee woon avance wala nga ne say samay mbokk ñoo ma tayle. ñun loolu moom du kaas si ñun. adversaire du kaas si ñun bis moo ñu jaaxal bis mais adversaire moom jaaxaluñu. Hmm. man boog adversaire jaaxaluma ak adversaire bu mënti doon Papa Sow laa soxla. déet waxoo woon loolu da nga moom Papa Sow nga waxoon ak Zos. Zos soxla ma ko Zos du bërekat. Zos Papa Sow laa soxla. Papa Sow meen. waaw. Papa Sow meer fi keroog digganteem ak Siteu li mais daa taw daa daw. la ma instant bii nii Papa Sow amul bës maa am bës na ñëw ma may ko bës. waaw ko daan ko jël bu rëy. tamit xanaa mu bañ. de. waaw xanaa mu bañ mais bu nangoo nga defal ko. lan na bëgg xool na nangu rek <laughs> soxla ma sax avance. lépp waa garage mënuñ koo gérer Papa Sow lañ ma digal ma jël ko. tey a waaye dugg ci loolu. non damaa tàppet loolu. mais naka nga gisee làmb bi nga dugg see ci làmb par rapport ni nga ko daan déggee nga daan bëree mbapat nga ñëw dugg si bëri dóor naka nga gisee dégg naa ko ñu naan boo demee doo dégg ak boo demee doo léeg mais loolu lépp ay sóob la rek affaire affaire du góor la. est-ce que yomboon na bi nga ñëwee dugg ci làmb est-ce que yomboon na. yomb na kay. man lépp déggoo ma waxoon naa ko néew naa maa bàyyi góor day yomb si man dama xamoon ni làmb ji man maa ko moom. avant maa bëre man xam naa ne kii bu ma ko jàppee dama koy daan. mais lan nga koy wax par ñi nga xamante ni ñoo koy bëggee nga daan ko est-ce ko wax comme que munoo daan ki nga xamante ne mooy Ziga génnal ci làmb wala xool. Eh, loo def bàyyi góor mën naa daan ku ne bàyyi góor daa mën a bëre daa daje ko dàq bëre rek ndaanaan la dajal mais nag mais nag Papa Sow sori na nañ waxante man ak yow ñooy waxtaan waa gaz buñ la wër mu xaw a neex xam nga kalandoo di gaay di yab di dem di ñëw nga wax Papa Sow wax ma non yow déggal kii xam nga yii laay bañ damay ñëw fekk la ñu lay wax yoo xamante ne doo comprendre wax ma sa adversaire potentiel ñan ñoo xamante ni yow ak un bu taxawee làmb du ko dàq. Ah, man moom instant Papa Sow laa teg sama promoteur mu yi ma woo sax Papa Sow laa leen wax. ak sa diggante ma bëree pare ñetti promoteur topp nañu ba sama gaale. man leen Papa Sow ñu yaakaar ne ay waxi comédien la Papa Sow laa soxla biir arène nationale ma jàpp ko daan ko jël bu rëy. fan nga teg ni da ngaa war a mën a bëre Papa Sow. ah Papa Sow. Papa Sow gis nga bi mu jàppee Zoss ni ko def gis nga bi mu jàppee Tonnerre. waaw gis nga bi mu jàppanteeg Baye Mandione. na de. loolu kay kenn waxatu ko. waaw mais bu dajeeg un du bëre. bu dajeeg un passé bu dajeeg un. tey fi mu yow bu ma la andi woon sa digganteeg euh, ki doon bëgg Liss Ndiago nu mu tudd. xam nga ni mu tudd ki doon bëgg Liss kii kon euh, kii Laurent. Laurent ak. lii ay mag ak rakk lañ. non damaa juum Laurent ki mu doon bëre. ki mujj Laurent mu njëkk a bëre. sa digganteeg plateau lamb du ko dàq. Hmm, yow loolu nga gis yow. sa digganteeg plateau lamb du ko dàq. man de waxuma ni combat la waxuma ni du combat mais man daal en tout cas li ma la wax mooy man kay gis naa ko woo a sama bët bi teguma ko ci plateau ci Papa Sow laa mais bu ci xajee. fi mu toll nii su ma woon petit production bu ma ah. nekk woon sa combat yaa am na keneen ku ñuy wax. nu mu tuddee jàpp mu jeex. jàpp mu jeex maa ngi dégg ay jàpp mu jeex ak. jàpp mu jeex xaw ma boo yooyu fan lañ dégg dégg naa am na deux combats Cambérène la dëkk. Cambérène la xaj nañ ci de. mémoire bi feesagul. mais un Ziga nag daa gaaw a fees. ah moo tax la loo ci dugal na ko xam xawma Bou Siteu laa jël moo ma taxoon a toog bañ bañ a bëree. <laughs> yow Bou ngi bañ moo ngi bañ Laurent ndax Laurent benn combat def. yow Bou Siteu daa am de am na cas bu rëy. jaamu gën la dugg ñun deretu jaamu gën mooy daw suñu yaram 100 pour cent jaamu gën. Bou Siteu Laurent da koy jàpp daan ko bu bëggee ma may ko revanche. mu ñëw jël revanche bi ci yow. waaw non moom du nangu loo Bou di voyage waajali combat. Bou fan dem. day day voyage. fa la dem non day dem. waaw ah, baax na. bu day dem de. baax na. loolu Sénégalais yi dañ ci xam dara ci kanam tuuti. Hmm. naa mais fi mu toll daal jàpp mu jeex bi lay wax ay jàpp mu jeex ay plateau man daal na gaa yi ñëw xool. nañ ñëw rek rangaloo. Hmm. yi nee nañ ma naa bàyyi Papa sax te ñu booy. man moom sama bët bi ci Papa Sow laa ko teg. baa du Papa Sow boo booy nelaw mu ngeen nelaw waale booy yeewu mu ngay yeewu. moom moo tax a defal licence nga naan ma nii. Papa hmm. Sow moo tax a defal licence. ñan ngay lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ak ngay wax ñi nga xamante ni ñoo say supporter di bëggee ki nga xamante ni mooy un giga làmb ji nga jógee nag metti na ndax waajal combat kenn ku ne xam ne ne coono képp la lan ngay wax gars yi nga xamante ni ñoo lay seetaan ci wasaare làmb. Ah, gars yi dama leen wax man damaa kontaan keroog trop sama combat bi. Ah. ñëpp si jàpp lépp lu dëkk te maam jaara jaama gën Fora Fass surtout maag waa carrière hmm. waa carrière waa carrière ñooñu dañoo sonn ci combat bi torop barki Serigne Bamba waa trafic tamit waaw borom camion yi borom seret yi laveur yi waa borom mbedd mu mag wi si ndox ah mbay xadaa mbës waaw surtout maag mbës mbës lépp lu may sol moo koy defar lépp lëz may wat xot bu bees taax nee moom ma lay daajal ci stade bi. woon nga woon daara lii <laughs> amul fenn man rek. gaa am nañ problème de. Ah. lu leer laa la wax ci kanam ci xam ne gaa am nañ problème. Ah. baax na gis ngeen gaa yi am nañ problème tey maa ngi àndoon ak. ak ñoo xam te ne mooy 1 ah, mën nga sant gërëm ñu jaayee fa tëj tàggatoo mais balaa maa tàggatoo nag wàccal suuf moom faa nga may ma ko fii. wàccal ci suuf. waaw moom. kooku moom dafa ko ma yóbbante nee na boo demee boo fi àndul wàcc suuf bi moom bu yóbboo nga di ko jëliwaat waajal ji loolu kaa ñu fekk mooy loolu dañuy mhm. mën nga mën nga sant gërëm ñu tàggatoo nga may ah, waajal suuf waaw di sant waa Gaana mhm. sant ñoom Fallou Cissé mhm. ñoom nees sant nees sama doomu lay kii daa am combat la 30 mu bëgg gaa yëpp jëw jàpp ci ñu yëngalaat àdduna état bëgg ko xew moo xew suñ écurie instant rang la ñëpp bëgg a dugg. bëgg a dugg ci biir écurie bi. bëgg a ku ne naan paate paate paate paate yaakaar nañ ni affaire bi moo la affaire bës ko saw la jóg rek mais instant yi nii. bës bi ak mbamb bi bës ko saw la di sant sama waa koñ waa Louga di sant ñaambur ñaambur yi ñaambur ñaambur Louga loo Louga loo yi ñun promoteur lañ am mais amuñu mbër Louga promoteur la amoon mais amul mbër mais dama leen bëgg a xamal ne am nañ mbër. xanaa si ñëpp jàpp ñu xam ne am nañ mbër waaw sant sama gaa yëpp leen bëggee ñëpp ñëpp ñëpp bu ma limee juum leen sant ñoom ñëpp waa tëli maam jaara waa tëli karo waa faas waa guy ga waaw waa trafic yi ñëpp waaw maa ngi ñëpp daal waa kayaar waaw waa ndox wa ragaluñ loolu waa kayaar ragaluñ loolu ah gis nga waa Kayar ragalul loolu. da ak Loora Loora bi. waaw <laughs> gars yi am nañ problème Mor Loora. ko koy borom ambiance. <laughs> mooy borom yëngal. maa ngi nuyu ki nga xamante ne moo ngi nekk fee waykat bi nekk Pikine. kan la ci. du euh, mu tuddee waay. naa waykat ba Loora Loora la ah booy la waaw Matar Fall ñoom ñaar ñoo ñoom ñaar ay mbokk lañ. maa ngi bu baax a baax. sama waay la ne ko am na doomu loora bu nekk fii mi ngi yëngal tëli maam jaara. kookoo ngi <laughs> dëggate àdduna instant nii. Mata Fall maa ngi bu baax a baax. bilaay may ma wàccal suuf ñu tëjee ko. <laughs> wàccal suuf waaw dama la koy may mu ne <laughs> mais mais ngeen am seen mbër. mu nekk chauffeur clando naka ngeen dundee ak. waaw dafa ginnaaw loolu dañu nuyoo di la yow di la ñaanal jàmm ndax lii nga def ni yombul di la ñaanal jàmm di leen wax seen site bi fi ngeen bëgg mu àgg yàlla na ko suñu borom àggale ci darajay Rasulullaay un Ziga nag kenn la ci ñun sëfoor la nekk benn jëmm boo xam ne amul xaar ma yàlla ñëpp la yemale amul Jean amul Paul ñëpp bu jógee ñëpp ay jóg garage bi un Ziga buy bëri ji du fi des oto yëpp ay rangaloo dem ndax ñëpp la jox respect ñu entraîné rek lañ ko sant bu amee combat entraîné rek lañ ko sant santuñu ko leneen lépp ñoo koy defal. kii bëreegul de li mu la wax léegi dafa leer de bëreegul de billaahi bis bu commencé bëre ci arène bi ngeen xam ni kii ndaanaan la yéen ay kii Papa Sow ngeen di wax. Balla Gaye sax kii ko mën. Balla Balla mënul bëre boo ko joxoon un ziga mu jàngal ko bëre. gis ngeen Balla mënul bëre boo ko joxoon un mu bëre ak moom. kii mooy kan nga ni. kii mooy Bour Gueweul kii mooy ki laa jël drapeau Ah, ki nga jël daa buur. ah buur nuyu naa ah fay naa lu bëri. ci loone sant yàlla mu ñëw moytu. Ah, nga ñu tuddee la kii di 1 giga jël ko lan nga lan nga ci wax. waaw gannaaw bu ñu sant yàlla jël si yeneen bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu délégation bu ñu àndaloon Esat di sant suma waa Garañ di sant suma doom baay ma àndaloon di sant suma doom day sant ñëpp maanaam drapeau 1 giga ma bii mu jël nii mbégte la ci man maanaam dafa na ma loo xam ne dootul fay ci àdduna. ku mel ni tey nga fekk benn chauffeur kalandoo comme ni ko sama waa ji maanaam nga fekk ku nga sang ko ba mu set solo ko ay yëre yu set kon kooku bu nga kaa wane te Fatou Balla Gaye moo def loolu kooku ba ba may dugg suuf mënu ma kaa fay suma àdduna moo tax daal dama koy ñaanal yàlla un giga lii mu wax lii moo ci a ndaw yàlla xam na ne roi des arènes mun na ko jot te da koy jëli gëm na boppam doomu dëkk bi la su jógee rek àdduna jug rawatina man nii di doomu géwél mu jël suma drapeau kii day dem kenn du ko téye day dem loolu la sam au passage bu mu leen wax na 1 giga ku ko mën a ñaanal nga koy ñaanal xam nga lu gudd fan ak wér yaram mais làmb jotee am place kii doomu dëkk bi la ñu def di leen ñaanal yàlla seen télé bi ñu koy dégg fu kawe kawe si barke Seydina Mohamed xool dafa sedd quoi merci. gis nga kon lu ci des ñu def wàccal ci suuf bi. waaw ñu def wàccal suuf bi waaw maa ngi santaale ñoom Modou Bamba. Mm-hmm. ak ñoom Talla Thiam. waaw ñoom Moussa Kalaam. Mm-hmm. sama combat bi samay grand frère mu leen gisee si bi. loolu dafay daw sama yaram. dafa am leneen looy yëg. dafa am leneen déggoo lu mu la wax man loolu noonu jamonoy mbapat na ba tey su ma tëlee gis samay grand frère ci stade bi. Mm. wala ci mbapat bi beneen nit laay nekk. waaw di bëggee ñoom talent bu baax a baax talaa jàpp dafa jàpp si combat bi dafa jàpp dafa jàpp si combat bi ñoom Zia ñoom Cheikh Omar gars yi yëpp mënu ma leen a lim. Mm-hmm. mais dama laa bëgg a xamal ni gars yi nañ xool waaw te ubbi seen bët tey xool dina demam du dem nañ xool. un dina dóoreem du dooree nañ xool. am naa ni moom moom est-ce que mën naa bëree nañ xool. waaw nañ xool. dinaa xam ma toogee fi naan la mën naa bëre. dañ naan ah daa tiim micro wala kebra yee ko wër mais nañ bàyyi ba ci kanam te ci kanam raw li ci bët. waaw di gërëm waa Angle Lawbe yëpp. waaw sama jigéen sant Marie. Hmm. kookoy kookoy borom hamburger yi. dama ko fàttee wax. Mariama borom hamburger yi kooku amul len len len. lu mu deful ci combat bi lii rek laa ko mënoon a fayee ndam le moom laa ko may. taalibe borom saam la xam nga waa caari Mbawar. xam nga Maamoor jaaro borom saam. dégg rek magi borom Touba. ñun waa kër Maamoor jaaro borom saam lañu suñ Moustapha Mbacke Elimane mooy suñu sëriñ. dëgg kon mënuñoo ragal dara fuñ turne lu ñu yóotu dañ koy jot. incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. naa leen lu bari doole. waa caari képp ku toog waaw tey taalibe borom saam rek waaw man maa lay bëggee waaw leen bëggee lu bari doole kontaan naa nag waaw ci ngeen def nii waaw. barke Serigne Bamba waaw wàcce suuf bi dama la koy may man ragalum loolu noonu. Ah, barke Serigne Bamba <laughs> ci suuf. wàcceel ci suuf. <laughs> damay ba ñëw dama far xam nga rek ah, dama far moom dama far moom ma jeex na waaw waaw aca wàcca suuf waa caw si suuf waaw waaw waaw waaw